mbokki internet yu vingt 221 dal leen ak jàmm Pape Alé Niang nekk ci ay guddi gu bër setagul ginnaaw bi nga xamante ne wàllum wér-gi-yaramam daal di nay tiital ñu baree bari ci diiwaanu ko Sénégal loolee moo waral ba njiital Pastef les patriotes Ousmane Sonko daal dinay jukk di addu ca googule mbir nee na nag kii di Pape Alé Niang negi tey ci suba dafa daal di def ab malaise ki ko xam ne nag di Ousmane Sonko ginnaaw bi nga xamante ne nag nee na situation Pape Alé Niang bu yàlla sàkk mu ngay gën di tiital askanuk Sénégal tamit di gën di tiital ay jege ñaaleem ak ñi nga xamante ne rek jamono jile nag ñoo ngay veillé ci wàllum wér-gu-yaramam nee nañ kii di Pape Alé Niang wér-gu-yaram ga mu ngay gën di deltu ginnaaw suñu sukkandikoo ci Ousmane Sonko moom nag moo daal di def boobu les révélations mu ngay xam ne ne journaliste taskatu xibaar bi moom dafa daal di def ab malaise nege tey ci suba ginnaaw bi nga xamante ne nag yaramam loof na ba lottu lool ndaxte nag kii di Pape Alé de la faim la daal di nekk refusé lépp maanaam dafa daal di bañ li nga xamante sax moo di perfusion ba nga xamante ne war nañ ko kaa defal bu ñu sukkandikoo na ba àgg ci lool ndaxte nag nanguwuta a defal kii di Pape Alé Niang nangu ne Pape Alé Niang nag ci coowal Adji Sarr Ousmane Sonko boobee waral nañu daal di koy tegub loxo ginnaaw lenn ci ay document yu mu génnee ñu daal di koy jàppee nag secret d'état wala rek secret de défense ca waxtu boobee nag jàppale ne loolee moo waral ba procureur daal di autosaisir daal di teg loxo ki nga xamante ne moom moo di Pape Alé Niang Pape Alé Niang nag ba ñu ko tegee loxo du ab convocation lañ ko jox joxuñu ko dara dañ ko fekk ci ale ale Pape Gueye Fall muy defar ab otoom ca lañ ko daal jëlee patam patamee dugal ci seen fourgonnette daal di yóbbu ca nungu siina Pape Alé Niang jàpp nag ne moom jàppinam jaarut yoon ab doole lañ koy jaay waaye tamit dañ kaa daal enlever ci waxtu woo xamante ne mënoon nañ ko ab live waxtaan ak ki nga xamante ne moom moo di Mollah Morgun ba mu ca noppee rek lañ ko daal di ñëwaat teg si waat ko loxo mu daal di delluwaat ca xiifal ga nga xamante ne nag ca la nekkoon ba saa sile tembe ñuy wax ak yéen Pape Alé Niang génnee nañ ko ca Sébikotane gañ ko yóbbu woon daal di koy yóbbu ca l'hôpital principal waaye nag ca l'hôpital principal boobaak léegi def na fa ay fan yu baree bari te Pape Alé Niang wér gi yaramam taxul mu dellu si ca normal waaye nag jamono jile rek ñu ngay xamle ne loof na lottu na lool kii di Pape Alé Niang nag askanuk Sénégal ñëpp